docteur du Sène maa ngi lay nuyu. maa leen di fay. yaa ngi nekk ki jiite programme bi xeex wàllub uh, woppu uh, sibiru fii ci Sénégal ñu ngi lay jaajëfal di rafetlu nangu gi nga nangu nekk sunu ganu suba si. jërëjëf maa leen di fay di leen nuyu di nuyu auditeurs yëpp. Mm-hmm. di rafetlu également invitation bi ngeen di defal. ok jërëjëf docteur Sène yow yaay kon euh, pro euh, coordonnateur bu PNLP euh, paludisme di sibiru bés bu nu ko jagleel ci àdduna wërngal këpp ñu koy màggal ni ki tey jii ñaar fukki fan ak juróom ci weeru avril waaye ñu gis ne ren ji dafa am lu mu tombeel mooy feebar bi di coronavirus bi léeb yoon naka ngeen ko fas yéenee amalee. waaw maa leen di sant di leen gërëm di rafetlu invitation bi ngeen mm. di defal di nuyu askan bi yëpp. mais également balaa may sori peut-être ci wax ji mooy respecter li nga xam ne no plus hautes autorités notamment le chef de l'État le ministre de la santé ak le ministre de l'intérieur joxe nañ ko comme ndigal ñu moytu daje yi bari ci contexte bi nga xam ne moom lañ nekk mu nekk adduna bi yëpp dañuy feete célébrer li nga xam ne mooy journée mondiale de lutte contre le paludisme ren jii nag ñun ñu def ko de façon très sobre en faisant juste une petite euh, benn communication bu ñuy def pour fàttali nit ñi aussi que ne tey jii euh, paludisme dafa nekk feebar boo xam ne day continuer di faat ci suñu askan bi mais ñu nekk ci contexte bu particulier muy coronavirus bi nga xam ne moo lëmbee àdduna bi yëpp ba tax na pour ñu mën a gën a xeex tey jii yeneen feebar yi dafa jot ñu ñëpp ñu mobiliser génne fi corona bi ba pare mën a continuer li des waaye du tere liñ daan faral di def ci wàllu xeex sibiru bi ñu gën koo euh, gën koo euh, baral tamit xam naa du yomb parce que coronavirus bi tey jii dafa dem ba nga xam ne population bi dañoo am benn ragal loolu nag ñu war leen a sensibiliser davantage mm. pour ñu gën a respecter consignes yi nga xam ne moom la état joxe mooy di raxas sa loxo yi régulièrement mooy di fexe di jaxasoo ci ay mbooloo di fexe également di utiliser ay masques mais également gel hydroalcoolique yi parce que tant que wu wuñu tey jii ci coronavirus bi damay joxe benn exemple peut-être waxuma ko ci tubaab bi mhm. mais ci Louga am na ñu jël en quarantaine dans une structure de santé mhm. boo xam ne tey personnel bi yëpp dañ leen di mettre en quarantaine imaginez tey ñooñu seen liggéey ñu waroon na def leneen am mbir day xaw a jafe mhm. ba tax na donc contexte bi tey ñun ñëpp dañoo mobiliser wu programme yëpp autour du ministre de la santé pour xeex bi nga xam ne moom lay xeex coronavirus bi ñu mën a réussir d' abord ce combat avant de pouvoir continuer li nga xam ne moom la ñu doon def ci wàllu xeex paludisme bi paludisme bi nag du mhm. tere mhm. mesures yi ñu daan jël te loolu population yi nit ñuy jàppalee ci corona bi noonu la ñu war a jàppalee ci yeneen feebar yi notamment paludisme di jël sànke yi ñu leen jox di ko jëfandikoo sa yaram tàngee nga a mm-hmm. mm-hmm. a am ay nuroo wale dañoo xaw a loolu la gis d'ailleurs euh, docteur parce que sa yaram day tàng ngay am ay courbature ak yoo yaram yu metti yenn saa sax ñenn ñi ñuy socc mu dem ba peut am ay nuroo loolu jar na peut-être ñu laaj ndax du am des fois ay problème ci côté diagnostic bi. non du mën a am benn problème parce que mm-hmm. tey jii matuwaay yëpp jël nañ ko pour mën a xam mbenn bu nekk ban la ci doon. coronavirus wala paludisme bu nekkee coronavirus bi am na ay test yu mën a wax na lii coronavirus la mais du tam tamit euh, mën na am mu ñaar yëpp àndandoo nekk ko. Mm. parce que loolu test bi ñuy def ci diagnostic rapide yi nga xam ne moom lay utiliser boobu ba tey mun na la wax ndax lii palu la mais du tere tamit agent de santé yi dinañ def ay prélèvement pour xool ndax amooloo coronavirus aussi mm. bu ci mën a am rek amul benn jaawale bu ci mën a am bu ñu defee test yi ba pare. Mhm. mun nga am coronavirus bi ñu faj la comme ni ñu koy defee actuellement di féliciter vraiment agent de santé yi le professeur Seydi ak équipe am yëpp. mais di féliciter également le ministre de la santé effort yi muy def amul guddi amul bëccëg vingt quatre heures sur vingt quatre il est sur le terrain la dama profiter quand même pour remercier ko moo tax ñun ñëpp mobiliser autour de lui pour jàppale ko parce que corona bi tant que débarrassé wuñ ci. impact bi muy am ci suñu système de santé bi kenn mënu koo xayma. Mhm. ñu ñëpp gis nañu nu mu def bitim réew. dëkk yoo xam na ñoo ñu ëpp doole fap tey jii kenn mënatul a def dara lu dul di lijjanti ay affaire coronavirus te loolu war naa mën a ñàkk loolu nag balaa ñu ci egg prévention la ñu mën a def directive yi nga xam ne état joxe na ko nit ñi respecté ko bu ñu nee bul dem dëkk ak dëkk na ñëpp toog fi ñu war a toog tey jii boo gisee dëkk affaire bi law ci yeneen dëkk yi. ñàkk respecté loolu moo ko andi état li mu war a def yëpp def na ko li ci des ci population bi la des. Mm. et loolu dañuy ñaan message bi ñu mën a gën a renforcer prévention pour ñun ñu mën a continuer di xeex sibiru bi tey jii ni mu waree parce que tey sibiru boo xoolee ba ñu xaymaa euh, at mi ñu génn ci àdduna bi li ñu am ci cas de paludisme tolloon na ci plus de deux cent seize millions. Mm. de cas ci àdduna bi. mu nekk te deux cent seize millions yooyu yëpp boo xoolee ñu ngi ko ñu ngi ko gis ci euh, euh, ci dëkk Afrique yi. ba tax na donc ça veut dire que feebar boobu mu ngi fi ba léegi mais tey docteur est que ak feebar bi di coronavirus gis nañ ne moyen yëpp dañ ko jël concentré ko ci feebar bi est-ce que après du dem ba andi gàllankoor ci yeneen programme yi. mais boo gisee mobilisation bi président de la république def wut ay ressources supplémentaires wàññiwul dara ci ressources yi nga xam ne tey jii moom la état ak euh, bailleur de fonds yi defoon ci xeex sibiru bi wala euh, yeneen feebar yi mel ni tuberculose ak sida au contraire dañoo renforcer waat encore. pour que ñaar yëpp ñu mun leen a xeexandoo tey ñii boo gisee le force Covid du maître président jël 64 milliards yi mu jëlaat euh, mettre ko à la disposition de la santé du wàññi dara ci li nga xam ne moyens yooyu yoroon nañ ko pour mën a xeex sibiru bi tey jii récemment ministre de la santé joxe la directive pour que moustiquaires yi fi desoon yëpp ñu jël ko séddale ko ci euh, ci région yi ñu ngi noonu di ko yóbbu ci région yi. Mm. lii di test de diagnostic rapide yi mi nga fa ACT yi mi nga fa. li des rek mooy que ne peut-être dana limiter suñu supervision yi déplacement yi ñu doon def wala formation yi ñu def yooyu parce que ndigal li mooy ñu wàññi yu mel noonu pour éviter mu am propagation bi mm. mais amul dara lu wàññeeku ci moyens yi nga xam ne état jël na ko mettre ko la disposition ci xeex bi ci fànn boobu tey mm-hmm. fonds mondial jël na xaalis bu bëri mm. mettre ko la disposition pour ñu jël ay équipement renforcer terrain bi ci nawet bi di ñëw euh, docteur ñu gis ne sibiru bi dafay am benn pic bu ci am Euh, tey jii est-ce que ragaloo ak feebar bii di coronavirus nit ñi ragal a dem peut-être ci hôpitaux yi parce que dem buñ yaakaar nañ ne buñ fa demee euh, ak yeneen ak yeneen beddi beeg yooyu mais aussi ñu yaakaar ne buñ fa demee jëlee fa feebar bi. waaw ci fànn boobu quand am na ay risques yu réel yu ci nekk. Hmm. parce que tey jii bu ñu defee le tour des hôpitaux ñu bëri dematuñ ci hôpitaux loolu nag moo war a mën a ñàkk parce que bu ko defee feebar yi dana gën a bëri non seulement Covid bi dina gën a yaatu parce que tey jii bu nekkee nit ki da nga feebar toog sa kër wala nga continuer di dox say soxla bu nekkee ne tey da nga am Covid 19 bi di nga ko gën a yaatal ci dëkk bi bu nekkee tey da nga am paludisme balaa ngay egsi dina nekk mu nekk paludisme bu garaaw bo xam ne tamit da ngay faatu parce que tamit ñun sensibiliser la ñu mën wax ak population bi pour que yu mel noonu bu amee ngeen woote ci quinze quinze wala ngeen woote ci numéro yi nga xam ne joxe nañ ko muy huit cent zéro cinquante cinquante bi nit ñi mën a ñëw fekk leen fañ nekk defal leen test yi. bu nekkee dafa négatif ci Covid 19 bi ñu defa leen test de diagnostic rapide pour xool ndax du sibiru bu nekkee sibiru ñu jël garab yi jox la ko donc loolu dañuy woote peut-être di def un appel à aux, aux médias aux journalistes aux réseaux communautaires bàjjenu gox yi. Mm. relais communautaires yi ñu renforcer sensibilisation bi. Mm. ñun ci fànn boobu campagne yi nga xam ne dañ ko daan faral di def. actuellement ñu ngi préparé wu pour mën a dérouler li ñuy wax la chimioprévention saisonnière bi ñuy faral di def chaque année. Mm. dans les régions de forte transmission notamment ci Kédougou Tamba Kolda fa nga xam ne fa la sibiru bu gën a bare. Mm. campagne bi ñu ngi koy waajal ci ci mois de juin bi lañ ko war a def. dinañ jël disposition yi nga xam ne mooy permettre ñu mën a protéger population bi mais protéger agent de santé yi jox leen ay masques jox leen ay gants jox leen ay gel hydroalcoolique pour ñu mën a distribuer médicaments de prévention yi nga xam ne moom la ñuy def ci wàllu sibiru bi. Mm-hmm. donc dañuy ñaan rek li ci des euh, mooy population bi la la seen loxo nekk mais ñun ci wàllu euh, nguur gi jël na li mu matuwaay yi mu war mën a jël yëpp pour que vraiment sibiru bi wala yeneen feebar yi jël de l'avant boo xoolee réunion bi ministre mën a mujj tenir ci loolu la ko focaliser jox na ndigal ne programme yëpp nañ continuer góorgóorlu fexe ba yeneen feebar yi ñu jéem a xool nan lañ leen di saytoo bañ a concentrer suñu efort yëpp ci Covid 19 bi. Mm-hmm. ñu gis ne tamit euh, waa programme ak waa ministère am na ay jéego yoo xam ne def ngeen ko ci sibiru bi ba euh, demoon nañu ba am ci euh, ay effort yu bëri yoo xam ne nemmeeku nañ ko ci tey ji mën nga ñëw ci bilan bi ci lu jëm ci sibiru bi effectivement ministère de la santé wax dëgg fa yàlla am na ay jéego yu bëree bëri yu mu def ci xeex sibiru bi bu ñu jëlee tey données yi ñu am ci daaw nii ci wàllu sibiru bi li ñu amoon en deux mille dix huit mun naa ne bu doon téeméer dañ ko wàññi dañ ko wàññi ci xaaj bi tey ci dëkk yëpp boo fa demoo tey deux mille dix neuf nombre de cas yi ñu amoon wàññeeku na de moitié presque parce que boo xoolee li ñu amoon ci nombre de cas yi en deux mille dix huit tolloon nañ ci presque cinq cent et quelques mille cas mais ren jii presque boo xoolee eguñu ci trois cent mille cas boo jëlee li na faatu woon tolloon na ci cinq cent cinquante décès yi ñu amoon ci Sénégal gi yëpp tey jii wàññeeku na ba toll ci à peu cent quatre vingt résultat yi ci fukki at yi mujj yi boo xoolee sibiru bi wàññeeku na bu baax a baax ba tey boo demee bët gànnaaru Sénégal boo jëlee junni nit presque ay juróomi nit ñoo koy am par at boo demee tey ju mel ni Tambacounda Kédougou foofu la feebar bi nag gën a concentré wu parce que foofu boo fa demee tey jii boo jëlee junni nit mun nañ ne ñaar fukk ak juróom yi presque dañ koy faral di am ci Kolda Tamba Kédougou hmm. moo tax dafa am ay stratégie yu particulier foo dem fu ne rek am na nu ñu koy defee li ñuy wax investigation des cas cas bu nekk comme ni ñu koy defee ci coronavirus bi kan moo nekk ak moom kan la dëkkaloon ñu jëmal saytu ndax amuñu feebar bi faj leen ci saa si même stratégie boobu la ñuy def actuellement ci corona boo gisee kenn ku ko am dañuy xool ñi mu nekkaloon yëpp. Hmm. ñu jéem leen a saytu am fi leen a euh, confiné teste leen bu ñu ko amee ñu jëm commencé traitement bi même chose la ñuy def dans la zone nord pour éliminer définitivement paludisme bi ci côté boobu mm. donc tey ji feebar bi di pandémie bi mën na am impact réel mm. te impact boobu pour ñu mun ko moytu nag population yi moo ñu ciy mën a jàppale képp ku am fièvre nga dem ci structure de santé yi ñu mën la gëstu xool ndax amuloo feebaru paludisme. Mm. wala amuloo feebaru corona ñu teel la traité. Mm. parce que tey Sénégal objectif am mooy éliminer paludisme. Mm. tey euh, dynamique bii ñu am ci coronavirus bi am nañu yaakaar ne buñ ci jógee même dynamique boobu dinañ ko am ci wàllu xeex lii di sibiru. lii di tuberculose ak sida pour que définitivement Afrique tamit mën a mucc ci feebar yooyu. Mm. Euh, voilà euh, docteur sen ñu gis ne tamit euh, wàllum sànke yi ñu nàndali bari na ñoo xam ne am nañu ko ci seen biir kër mais aussi ñu gis ne am na ay famille yoo xam ne ba léegi pour ñu takk ko day nekk jafe-jafe. Ah, li ma si mën a wax rek mooy message la bu ñuy jox di ñaanaat encore population bi ne sànke yi dañ ko war a jëfandikoo at mi yëpp njaboot gi yëpp ak bis bu nekk. parce que tant ñu ngi koy bañ di utiliser tey bu ñu gisee bu ñu xaymaa ba ñu defee suñu campagne ba pare résultat yi dafa dafa fés boo xoolee sibiru bu wàññeeku na ci dëkk yëpp presque de moitié mais boo jëlee lu mel ni Dakar dafa mel ni dafa am sentir bariwul bari boobu mais ci district yëpp dafay commencé di mel ni lu yokku parce que dañoo seetlu ne Dakar nit ñi duñ jëfandikoo sànke te sànke mooy euh, solution bi gën a baax ci euh, protéger nit ki parce que mooy li ñuy wax mesure barrière tey boo jëlee coronavirus bi tey ak euh, paludisme dafa am ay similitudes yu bari tey vecteur bi nga xam ne mooy joxe sibiru yoo la mm. mais fii vecteur bi joxe coronavirus nit ki la moom mooy porter virus bi jël ko yóbbu ko feneen fële tamit plasmodium falciparum bi benn yoo moo koy jëlee ci nit yóbbu ko feneen te boo amee barrière bi nga xam ne mooy tax du yoo bi di egsi si yow muy sànke day tax yow doo mën a am feebar bu demee day piqué kenn koo xam ne dafa am doomu jàngoro bi ci yaramam bu ñëwee tamit bëgg laa màtt fekk nga am moustiquaire day tax doo am sibro bi mm. noonu la tamit c'est pareil ci barrière yi ñuy wax parce que tey jii nit ki nga xam ne dafa am porteur de virus bi mm. boo ko jegewul wala nga sol masque masque bi mooy comme seen moustiquaire yi rek mm-hmm. nga loxo sa loxo yi mooy fexe ba virus bi dee sa loxo donc y a une tellement une similitude que feebar bi ñaar yëpp lañuy ñuy di ko xeex ba fexe ba yàlla dimbaliñ so parce que tant corona bi mi ngi fii dafay impacte lu bari mm. yeneen feebar yi. Mm. léegi bu ci doole nag nit ñi bañ a jël matuwaay yi nga xam ne jox nañ leen ko pour bañ mucc ci yeneen feebar yi. problème lay am mm. ba tax na dañuy ñaan population bi ñuy gën a jëfandikoo moustiquaires yi comme niñ ko santaane moustiquaires yi am na fii amul dara lu manqué état jël na moyen nécessaire yëpp daaw plus de dix millions de moustiquaires la ñu séddale ñu ngi nii di yóbbuwaat ay moustiquaires sur les régions pour que ku ci soxla ñu mën la cee jox notamment ci jigéen ñi wërul yi ak xale yi nga xam ne amuñu cinq hmm. laaj bu mujj bi docteur euh, ni ki ren lan mooy thème bi ngeen tànn ngir euh, journée bi. Euh, ci tubaab dañuy wax zéro pali je m'engage mooy pali du jaar ci man dama war a fexe ba sama gox bi ma nekk. Hmm. wala sama dëkkandoo yi kenn du am sibiru loolu nag ni koy defee mooy mesure de prévention yi njëkk yi buñ ko paree ñu ñu fekkee jëfandikoo ko li ci des mooy secteur yi ku nekk collectivité locale maire yi. association yi bàjjenu gox yi gouverneurs yi préfet yi euh, ñëpp secteur privé comme tey mobilisation bi nga xam ne def nañ ko avec la force Covid 19 lu ñu am moom la ñuy ñaan pour ñu am même engagement boobu pour que Sibiru jóge fi définitivement parce que objectif bi d'ici deux mille trente la waaye bu ñu defee engagement tey jii bi nga xam ne tey am nañ ko ci Covid 19 bi buñ ko amee ci Sibiru bi am naa yaakaar ne. même avant deux mille trente mën nañu yaakaar ne peut-être sibiru bi dina fi définitivement. Mhm. donc zéro palud je mooy thème bi nga xam ne moom la euh, rollback malaria joxe pour ñu euh, utiliser comme thème de cette année là. Mhm. voilà docteur Doudou Sène maa ngi lay jaajëfal. merci maa ngi leen di sant di leen gërëm di nuyu di di di di remercier téléspectateurs yi ak auditeurs yëpp. ñu lay jaajafal bu baax di fàttali ni yow yaay euh, coordonnateur bu programme bi nga xam ne mooy xeex wàllu sibiru fii ci Sénégal jërëjëf. merci.